salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum mbokki patriotes yi mbokk Sénégal Adji saar laa coupé léegi téléphone Adji saar moo ma woo téléphone mu wuyu ko mu ne ma Adama Boss Dey Negri mu ne ma ne ko ah mu ne ma Adama sonn naa Adama tayyi naa Adama maa ngi bëgg a dee Adama kër gii ma dëkk kër gii may wax ak jëkkëru Nabou Daas ak sam di njaw faal moo ma ko fayal aw ma lu ma aw ma lu ma naan Adama ma ne ko ah mu ne man lan laa bëgg damaa bëgg nga dimbali ma te yàlla tax wax ak autorité yi wax ak Sénégal wax ak réew mi ñu gestu ma sonn naa lool nee na soxlawu ma xaalis soxlaatu ma dund soxlawu ma dara li ma bëgg mooy ñu defal ma passeport rek génnee ma réew mi ma dem Adji Sarr nee na lool kese nay ñaan ñu defar ko passeport génnee ko réew mi mu dem nekk ci ay am mën a liggéey comme nit ñi nee na sonn na aji nee na tabaski du génn korite moroomam yi dañuy fo foo fo koy tëj mais nag ku yor ngun a ganaar ci kaaf gi lañ koy denc di ko contrôler guddeeg bëccëg munta def dara aji nee na munta divertir vie bi muy dund nii dee sax moo ko ko gënal aji sar laa coupel moo ma ko wax mbokk autorité yi mbokk Sénégal mbokk réew mi message baa ngi nii ak ku ko mën a jàppale ngeen jàpp ci ngeen dimbali ko wasalaam